asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 2 avril 2019 ñu ñëw yéen ci yëglikaay yi sunu lamb tey leenuy xëy commencé ti ko yëglikaay bi nag tey booy Niang la ñu xëy wan ñu ko booy boo xam ne daal mu nga taxaw jël position mel ni koo xam ne day waaj a fecc wala mu fecc bay daaneel sunu làmb nag nee na ko yow day booy ñan est-ce que àndaat gi waa géej waay ànd nekkub dank doon benn mbaa du doon danse ci yow booy ñang day boo yax sàgganee sa diggante ak Lac de Guiers ah mën naa mu soppaliku lu méttee métte ci yow ndax na géej waay fi mu nekk nii moom jàppal ne problème amatu fa wala boog mbër ya àndandoo nañu loolu yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey samp ko mu di laaj ka mu bokkalab dëkk nag di Ama Baldé moom booy Niang yëglikaay bi di sunu làmb nee na boo jàppee 2008 ba fii nu koy wax day Ama mësula def année balance waaye ren jii day boo sàgganee daa mel ni loolu moo koy yot nan lay def nag ba éviter ko ngir mu bañ a am sunu làmb ñëw na tey ci loolu Ama daal kon am na lu koy yot kii moom ki nga xam ne nii moom mooy Gris Bordeaux yëglikaay bi di sunu làmb xëy na wan ñu ko Gris nag mu ngay wax ginnaaw ba ko gars yi falee def ko seen présidence wala bopp mu jiite seen kuréel ñoom les lutteurs en activité Gris nag ay sànceem xëy na di ko wax ci yëglikaay bi di sunu làmb nee na daal la ca njëkk mooy wàllum coopérative d'habitat maanaam ay dëkkuwaay ñeel ñi nga xam ne ñooy mbëri làmb yi nekk en activité di bëre ak lu jëm ci wàllum assurance ci côté maladie yeeg yu mel ni kii noonu daal Gris Bordeaux nee na moom loolu mooy li ko itteel ngir kuréel gi mu mën koo doxal def fa loo xam ne ni daal bu ëllëgee su fi jógee dina nekk njariñ ci mbër yi leneen loo xam ne dem gisoon nañ ko ci sunu lamb muy écrit bañ waxoon ne Tapha daa démissionné ñu dàq Papa Sow écrit ba di faas yëglikaay bi nag tey ñëw na moom moo waxoon moo wàqet moo weddi boppam nee na da doon naxe poisson d'avril la waa sunu lamb ko waxoon ñoo ko wàqet yëglikaay bi ñëw na ca loola leneen loo xam ne tamit gis nañ ko ci sunu làmb mooy xale boo xam ne day mooy jara de ginnaaw ba mu lijjantee Mamaya léegi nag nangu te génn te ngéej nee na kades mooy ama neex ak doomu dàngu nee na ñii daal nañu génn comme lijjanti naa Mamaya moom nañu génn ma defante ak ñoom kenn koo xam ne tamit wane nañ ko ci yëglikaay bii nga xam ne moom moo di sunu làmb muy rëg-rëg yëglikaay bi nee na day jàpp leen moom daal li mu mën a daa mel ni fi mu nekk nii day mu ngi koy confirmer ci fii nga xam ne moo di ci Adrien Senghor ci seizième journée bi nga xam ne amoon na fa ñii moom le 4 avril la ñu war a jàmmaarloo muy qualifié numéro 2 bu Thiaroye ak Gamou Gueye ñoom ñaar nag ñu ngay waxante ay wax yoo xam ne daal buñ ca yeggee diggu ba daal metti na ku ci nekk ku ne yaa ngi diggu sa morom ay duma yu méttee métti bu buñ ca yeggee leneen loo xam ne tam dañuy dem ci leewtoo point net fekk ko fa mooy kii nga xam ne nii wala li nga xam ne moo doon drapeau chef de l'état bi ñu wax ne mois d' avril la am léegi nag dàq nañ ko ba mois de juillet maanaam daal drapeau chef de l'état toxal nañ ko leewtoo point net lan ko jàngate leneen loo xam ne tam ca leewtoo point net lanu ko jëlee muy loo xam ne rafet na lool ba yegg ci lool muy kii nga xam ne moo di Eumeu Sène dafa demoon nag ca Géejawaay wala ca golf jaale ji Balla Gaye numéro 2 ji nga xam ne magam dafa génn àddina bu yàggul muy loo xam ne daal rafet na lool ñu yàgg ñu fekk ko ko fii nga xam ne mooy ca Leewtoo point net kon daal li am solo te am solo mooy àddina rafet moo gën ñaaw jëf ju baax moo gën ju bon lu mënte xew adversité mën naa am taala njaay waaye li mën a li am daal te des mooy rafetal moom dara gënu ko ndax nag ëmma loolu mu def sest bu noobala noobal la kon Balla Gaye 2 ak Eumeu Sène ak Modou Lo Gris Bordeaux ku ma mën a doon ñoo bokk ndey ñoo bokk mbaay bu espoir jotee nag defante leen ba mu saf waaye bu jeexee jeex na na ko booy ñang bu dégool waxe woon asalaamaaleykum mbokki suivre Leewtoo TV yëpp ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di leen ziar bu baax euh, ci bësu kasu rajab bi tey di wax euh, lépp luñ fa ñaan yàlla nañ ko yàlla nangul yàlla sotti jàmm ak xéewal ci dëkk bi ci nit ñi yokk ñëpp ba yëg ko ñu ñëw ak yéen tey ci seen euh, revue de l'arène ak Babacar sama mag sama xarit Babacar nuyu naa la. Aïssa maa ngi lay fay ah comme ni ko waxee Aïssa Faye madame Nia sama rakk lay bégee bu baax a baax di nuyu ñu ñuy suivre ci leen di baalu àq di ko saaku ci ñoom ah di nuyu tamit tey rek suñu mbokk jullit yi waaye rawatina nag di ziare suñu di ziare suñu sëriñ suñu xalifa sëriñ Abo Mbacke Fallilu di ko ziar ci bésu waajuram bi nga xam ne mooy Kazu Rajab bu ñu ko suñu xel ci sëñ Fàllu lay dem di ñaan di ñaan yàlla taalib ya dem yëpp màggali ko ak feneen fu ko waay di màggale yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin lu ñu ci ñaan rek muy njariñ waaw sëñ Fàllu moom waxuma sax murit bi wala tijaan wala xaadir wala chrétien mais sëñ Fàllu ñëpp la moom noonu la ko yàlla loolu yàlla moo ko ko jagleel kon nag di ziar julliti Sénégal di ñaan jàmm daal ci àddina bi mais tamit di wax ne que rek moom yàlla dafa def nag li olof yi wax ne jëmm day niroog takk ndeeram looloo am moo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo bokk benn guddi kon daal tey mooy Kazu Rajab di ñaan yàlla yàlla na xéewal yegg seeg jàmm daal waaw Babacar ñu jege ci loolu dugg ci sujet bi dem si li nga xam ne ni mooy jàngat bi ak eh, kii di Boy Niang suñu lamb ñëwoo ak kombaam ak digganteem Lac de Guiers nee na est-ce que tey booloo bi bu géejawaay booloo fa seen ànd doon benn du nekk luy andi la Boy Niang jafe-jafe. waaw mën nañ ko xalaat waaye jafe-jafe moom déjà ba mu jëlee combat ba la commencé parce que jafe-jafe mooy eh, di bëri koo xam daf laa bëgg a daan yow it nga bëgg koo daan ko ñoom ñaar ñëpp dafa daan du yomb si ñoom mais nag. damay jàpp ne kay mën na nekk motivation si Lac de Guiers 2 mën na dekk de plus lu koy mayaat doole mm-hmm. ndax doon nañ fa dégg ay tiraillement fan yi biir géejawaay suñ demee tey nag ba toog ba ne na mbëri géejawaay bu ñu àndee nekk bloc ne si ginnaaw booy a dimbali parce que tamit lu kenn man ko ko dàq te olof nee nañ bu ñu booloo wat we ça veut dire que kon booloo mooy doole loolu borom bi moo ko njëkk a wax wax nañ ko ñoom booloo nañu nañu booloo nag te yàlla tax waaw ànd moom li ci gën a doy waar mooy ànd taggante tàggoo jëwante na ko suñu papa Doudou Seck di waxe ànd bu mu mën a doon rek Aysatu na ko dëggalal te ñu fexe ko rafetal parce que ci la njëriñ du juddoo mais mais ngeen lu mbooloo mi bëri bëri te àndu ngeen te yàlla taxit kenn bu ñaar rek bu ñu te yàlla tax dañ leen doole kon ànd te yàlla tax moo am loolu la digal waa Guédiawaye di ko digal waa Pikine di digal ñu nekk ndax Pikine ñu ngi ak seen Pikinité ak seen 100 pour cent Pikine kon combat boobu daal du yomb man. waaw ñu jógee si combat bi dem si ki nga xam ne nii moom la mëri dégg déggoo ne moom lañ bëgg jiital mu jiite association mi Gris Bordeaux mu ñëw ak euh, ay chantier maanaam euh, mbébét bi nga xam ne am na ko ci association lutteurs yi lu ci mel ni ay coopérative d'habitat fexe amee assurance santé parce que gis na mbër yu bëri am nañ jafe pour am kër wala dañuy bëree ba bàyyi amuñu kër ñi seen santé dañuy nekk mag mu sonal leen moom nag euh, foofu la bëgg a accès liggéeyam ci association waaw loolu du ñu mën a def leen lu dul nuyu si Gris ak mbokk mbërëm yi nga xam ne ñoo nekk en les lutteurs en activité ak waa lamb yëpp di wax ne que tamit mbir bu fekkee dañ la ci tabb say morom doy loo xam nga yaa ñu doy moo gën a wër maa leen di doy <laughs> waaw comme ñoom ñoo xool ba ne koy yaanu doy ngir nga jiital ngir nga jiital ñu suñ kuréel doxalal ñu ko loolu mu wax tamit defe naa lu am njëriñ la te xel war na ko a nangu que di tey mu jiite bi fexe ba ñoom wàllum kër dëkkuwaay parce que bu dem retraite sax di am ay problème yu mel ni ki noonu kon moom bu fekkee ne loolu ne ñu mën ko régler loolu dañ ko naan yàlla na ko réussir ndax bu keroogee itam lu am solo lay doon ci bëri amal leen njariñ bi ci des mooy wàllum santé assurance ci côté santé beeg yooyu loolu tamit gis nga day poser problème da nga gis ay mbër yu dem ba benn moment wéradi di am problème fu leen fu ku leen faj ba ñuy demande ay aide yooyu kon loolu lépp nag mbir nag moom lu man mënta xew olof yi ne nañ euh, di la may jën chaque jour ay satu jàngal la lu ñuy nappe moo ko gën a wóor kon xëy na giri moom may jën bi la bëgg a dindi te jéem a xool ñoom nu ñuy def ba napp ñu ngi koy ñaanal nag sànceem yooyu mu teg ngir mbër yi nga wala ngir làmb yàlla na ko réussir daal muy chantier yu am solo ñi ñaan yàlla rek mu antuk jàmm parce que xéewalu ñëpp lay doon parce que mbër yëpp moom buñ ko ci am kër rek macha jàpp naa ne am nga assurance ci li nga xam ne mooy sa njaboot Babacar ñu jógee fa dem si combat nga xam ne nii le 4 xam ne mooy Coly Faye ak euh, Gamou Gueye 2 journée Dieye production di ñëw jour indépendance ñaari mbëri nag ñu ngi diggante lu metti pour jour ba <laughs> indépendance moom ku nekk nga koy bëgg a xëccoo su militaire yi maajee ba pare ñoom ñaar ñoo dese maaj ba ca Iba Mar datu 4 avril ak premier janvier ak 25 décembre dafa nekk ay dates yoo xam ne si làmb dafa historique ndax boo xoolee événement yu mag yi lañ ci daan faral di tëgg tey nag ñoom boo xoolee promoteur bi leen tëgg moom mu ngi doog am loolu te xale la muy jéey ñoom ñaari mbër yi koy bëri tamit ay xale lañ ñu ngi koy dóor a yaakaar naa suma juum wala bokk ci grand combat kon jàppal ne loolu lu daje loo xam ne ni historique histoire la ci ñoom mu nekk lu nga xam ne nag ñaari lébu lañ tamit kenn du may sa morom dara waaw lamb nag noonu la fi nii ku ne da ngay diggu sa morom ngir bés ba suñ ca def lii maay def la waaye li suñ papa Max Mbargane di wax rek ñaari damay dugg ay mais benn mooy génn la 4 avril nag xam naa ne ku dem Iba Mar Diop di nga gis lu neex ndax vraiment jéey la mu taxawal ànd ko ku mel ne Abdoulaat Ndiaye jàppal ne moom lamb ju neex la ñuy gis jeudi bu soobee suñu borom 4 avril fële ca stade Iba Mar Diop ñu ñaan yàlla rek ñu dugg ci bismillah rahmaan rahim jeexal ko alhamdulilahi rabbil alamin que le meilleur gagne parce que ñaari xale lañ yoo xam ne ay espoir la ñu te seen i dëkk am nañ ci ñoom yaakaar muy tëngeej di caaro Uh-huh. waaw Babacar euh, ñu dem euh, si li nga xam ne ni moo nekkoon drapeau chef de l'état dañ ko jàppoon euh, si mois d'avril bii ñu nekk mais gis nañu dañ ko reporté waat ba fi nga xam ne mooy mois de juillet ba koor gi jàll daal ñu doog a dem ci drapeau chef de l'état bi. waaw parce que boo xoolee actuellement ni drapeau chef de l'état pour buñ ko fi bëgg organiser ak journée des ci lutte avec frappe day xat parce koor gi début mai la. yaa ngi dégg te ñu ngi ci mois d' avril tey le 2 kon yaakaar naa c' est normal que ñu pousse ko ba ñu korate ba pare maanaam mois de juillet lool moom xel nangu na ko a ah, ñu ñaan yàlla fekkee ko ak jàmm rek parce que tamit nekk na rendez-vous nga xam ne chaque année day am te équipe yi ñoo koy xëccoo muy équipe yi ne Sénégal maanaam région yi a ah, ren nag Dakar la war a amee waaw muy loo xam ne daal lu nara a neex lay doon ñu ci profité sax di ci nuyu l'entraîneur de Fatick muy Bafa Gueye moom ndeysaan ne na bëggoon na mu amee Dakar ngir mu ñëw fayu daa mel ni kon nangul na ñaanam loolu Ibrahima Mbaye tamit muy entraîneur Dakar ñu koy nuyu di ko siyaar di ko jaale soxnaam parce que soxnaam dafa génn àddina bu yàggul moom mooy entraîneur eh, eh, équipe bu Dakar bi mook ñoom Omer Seck ñoom Cheikh Ndiaye daal di wax ne kon drapeau résultat mois de juillet lay doon fii ci Dakar waaw fii ci Dakar comme mën na am ci diggante bi tamit euh, mën na am mu changé am ah, changement am parce que ñoom moom dara fixé gul pour l'instant <laughs> xamaguñu mais tamit euh, beneen information bu ñu gis mooy ki nga xam ne nii mooy euh, Eumeu Sène ginnaaw bi Balla Gaye ki nga xam ne ni mooy magam dem na fa jaale ko mu nekk geste boo xam ne rafet na trop ci ñi nga xam ne ñoo bokk seen seen métier. waa Aïssatou comme li ma wax sànq rek gis nga àddina li si am solo mooy lu doomu aadama yi def di ko jëflante ak sa morom na nga fexe mu dëggu te rafet parce que loolu ci la njariñ li di nekk tey ñoom ñaar sport bu ñu koy wax nañ ko yemal si cadre sport adversité maanaam bu xëccoo jotee ngeen xëccoo mais ngeen ku nekk am lu mu réservé ngir ëllëg parce que bu fekkonte ne loolu amul xëy na la ëmb du def du ko du ko mën a def wala buy dem du mën a siggi mais jàppal ne que loolu man de wax dëgg yàlla ak képp koo xam ne ni yaa ngi ci àddina rek di yaakaar naa loolu di nga ko rafetlu parce que nag bakkan dafa fort su Balla Gaye ñàkkee ku bokk ci deretam di magam bokk ak moom ndey ak baay Eumeu Sol dem ba Guédiawaye jaale ci ko loolu di man rafetlu naa ko trop te defe naa képp kuy doomu aadama it di nga ko war a rafetlu parce que àddina loolu rek moo fi nekk ah coow li muy bëri bëri ak xëccoo bi tey lu dal Babacar rek Aysatu dootul nekk ci jàmm kon nag moo gën bi ñuy am suñu sago di nekk dara jotuñu nañu fexe jàmm yéenente jàmm loolu rek moo ñuy amal njëriñ daal waaw waaw yéenante jàmm moom gëm naa ne moo am solo mooy avancé réew mooy avancé kër mooy avancé bërëbu liggéeyukaay parce que jàmm ci la lépp xaj ci loolu lañ leen di tàggoo di leen ñaanal jàmm ak taw tawféex ci bésu kasu rajab bi di wax eh, suñu mbokk yi ku ci mel ni taalibi sëñ Fallou boobu di Ange Gueye nekk ca Touba ma koy wax Ange bu ñu fàtte si ñaan doolu ñu ñaan bu baax a baax di gërëm ñëpp di béggee ñëpp di nuyu sama borom kër sama yaay samay goro samay njëkke samay mag eh, Charlotte depuis Mali nogay nuyu naa bu baax a baax a baax di bëggee ñëpp daal Babacar. ay sa satuwaa noonu la demee ñu nuyu ñëpp rek tey taalibi sëñ Fallou yëpp wala jullit yëpp sax laay wax ah Asi Gaye ñu ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu tamit ku mel ni Modou Mbaye bu des TV xam nga ñoo ñëpp waaw di nuyu képp képp koo xam ne daal doomu aadama nga ak foo mën ne ñu ngi lay nuyu moo xam ngay taalibi sëñ Fallu wala nga di jullit sax ndax ñun ñëpp ñoo bokk euh, su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tam di nuyu suñu mbokku chrétiens yi yow parce que ñun ñoo bokk réew mi noonu la tëddee di ñëpp jàmm di nuyu ku mel ni Ndiaye Mohamed mu ngi Italie xam nga ñoom euh, Benzema dem Algérie maa ngi koy nuyu bu baax a baax Assane Sall Argentine Ndongo Fall Italie Baye Sall Paris xam nga Khady Rose Ndiaye mu ngi Allemagne tuuti yaay Sarr Espagne ma koy nuyu baax a baax di nuyu nga xam ne nii moom mooy sama yaay soxnaa na Cheikh Bintou Fall waaye dem ba Touba tam nuyu Awa Diop moom tamit dëkk Touba di ko ziar ci màggal gi di supporteru Balla Gaye xaadim tamit du ma ko fàtte xaadim Balla di ko nuyu di nuyu ay soxnaam di nuyu tamit waa groupe baax yëpp ah, di ñaanal ñëpp jàmm xam nga di wax ne que Sénégal daal yal na fi yàlla def jàmm xam nga te sàmmal ñu ko aaral ñu ko ay satu ndax nag jàmm la lépp Ah, ah, Serigne Ndiour depuis Italie maa ngi lay nuyu di wax nag xool bu sedd yaram mu sedd Aysatu yàlla na ko yàlla defal ñëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa waaw ñu jox leen rendez-vous ba suba incha allah.